gars yi maa di ziar xaale ma xoolaat bu baax defalat affaire yi xale ah. ma vérifier est-ce que gars le live gars yi ñu gis live bi ou pas maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sama gars tax yi di gis live bi bu baax a baax namm naa leen namm naa dugg si alors je vérifie hein est-ce que live bi donc voilà live bi dugg na. dugg si leen dugg si leen names names names ma ne ko names names names ku dugg partagé ku dugg partagé namoon naa leen namoon naa leen namoon naa leen ku dugg partagé ku dugg partagé ku dugg partagé ku dugg partagé namoon naa leen alors sama gars nakamou. Maneko ko sama gars nakamou. donc voilà que ma xool déjà voilà ok c'est bon euh, donc là que ma def sama conducteur gars yi nuyu naa leen nuyu naa nuyu dimanche passé voilà donc maa ngi remercier tout le monde xam nga gars yi ñu bëri ñu doon inquiété wu euh, woon nañ ma Rachid Hakim maa lay nuyu di bu euh, Ibrahim Ndiaye, je te dis bonjour. Euh, Joliba Djiba, hein? Présent, classe terminale. <laughs> ah bon, je, ne sais pas. Est-ce que on a fait la terminale ensemble? Voilà. alors? Adeline Cabral, Desan Manglé Nui Boubar, Rabar, Penda Baldé. aussi, vous m'avez manqué. Penda, Manglenui Boubar. Ça me fait très plaisir. Euh, Sister National, merci beaucoup. Mamoudou Bass, Manglé C'est Célé Sissé. Hein? Euh, voilà gars donc euh, présenté une fille fou voilà non non quest Freddy Matasila, Sylla lay nuyu bu Biram également Aram Sek Bala Diop euh, donc sama gars yi euh, Awa aussi elle est en train de regarder Wow, euh, j'aurais bien aimé que remaniement bi ce week-end là mais bon c'est vrai que le président était à New York et tout euh, il avait voyagé et tout euh, je pense il est rentré là man sama de déconnecté mais j'ai vu que on annonce donc ce fameux remaniement euh, voilà, réaménagement mais on verra est-ce que le premier ministre bi c'est le candidat euh, de la coalition Benno Bokuyakar? donc est-ce que euh, il va rester premier ministre ou alors euh, on aura un nouveau Premier ministre. Donc, est-ce que ce sera vraiment un remaniement ou bien un réaménagement Donc, euh, donc les gens, la presse en tout cas, la presse sénégalaise, que mardi, la donc euh, remaniement bi bi nga Babacar Mar mon frère Babacar di nous également et toute l'équipe digitale du du parti Réumi C'est vrai, on m'a envoyé d'ailleurs des vidéos donc ou Rewmi Réumi. des photos d'une dinako dinaa ko jàllale léegi également euh, ñom baax yaay donc toute l'équipe euh, les activistes donc républicains di nuyu bu baax a baax euh, ba jaxaté ba ma dimanche passé ndeysaan il m'a envoyé un message mang le nuy bu baax baax baax Batum Lo Alassane Mbengue également Djibril Sidibé également yi ngeen si yaay Biram également su fi la voilà ce sera la surprise du chef exactement président Macky fu nek lay tu vois voilà donc Matasi Sylla c'est c'est que nuy une mang le nuy bu baax rabat, Donc, euh, euh di remercier donc euh, euh, baatu deug donc euh, ki nga xamanteni ni mom moy donc ba Diakhaté mang Bubar lay nuyu bu baax di le remercier di nemmeeku bi tous les followers également yenn message yi ça m'a beaucoup beaucoup beaucoup touché di nuyu donc ñom baax yaay bu hein. on doit se parler d'ailleurs tout à l'heure gaay ana Anita Diop voilà donc on s'est parlé ndeysaan démb par message Anita namm nañ la ñëpp gaay ku nek moy envoyer message mati ana ana Anita maman Nafissatou Diallo les lay nuyu également ñu lay nuyu bu également maximum de cœur pour notre sister donc Anita Diop xorom safal affaire donc Anita nañ la ñu lay nuyu bu Anita ah, également tous les actifs républicains comme ni encore une fois euh, donc gaay ma euh, le sommaire euh, ne nous dans ce live là entre 17h 18h de Paris entre 15h, euh, heure de Dakar, et 16h, donc heure de Dakar. Donc, sama euh, là, ce qu'on va faire mon on va parler de euh, du premier ministre Boun Abdallah donc Boun Abdallah ni c'est l'ancien premier ministre donc Boun Abdallah john de voisin en voilà Abdoulaye Fam maa donc Boun Abdallah John donc l'ancien euh, premier ministre euh, voisin bruit je vais parler doucement donc Boun Abdallah Dion, l'ancien premier ministre je vais parler donc j'ai parlé avec lui est-ce que ni m'entendez est-ce que que est-ce que vous m'entendez gars est-ce que vous m'entendez vous ne son bi mangi ngi est-ce que ni ngeen may dégg sama gaay bu dee son bi baax na ngeen wax ma gaay ci commentaire yi lay xaar ngeen wax ma est-ce que c'est bon ou pas partagez mettez des cœurs est-ce que son bi baax na vous me dites oui voilà c'est bon donc euh, l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne euh, dafa samp ndëndëm je l'ai eu tout à l'heure au téléphone dinaa leen wax euh, waxtaan bi tënk tënk leen waxtaan bi suñu waxtaan man ak euh, parce que il tient à sa candidature euh, donc on va y revenir le président Macky Sall était donc à New York dinañ ci également fameuse soncorisation. on en reparlera également Guy Marius Sagna il est en train de faire une tournée européenne xaw ma un peu comme Ousmane Sonko en 2000 2019 avant l'élection présidentielle Est-ce qu'il veut être le plan B bu parti expastif ou wala d'une supposée coalition euh, Sonko 2024 de ci euh, également donc le président à New York gis ngeen ni euh, gars yi ñu ngi doon a yëngal waa ex mais bés bi ñu bëggoon amuñu bien que y ait parti site internet nous ñu leen doon jàppale am na yoo xam ne sax duñu ko wax ndax mais ça prend pas donc dinañ ci ñëw également ñoom Matar euh, euh dem nañu aussi euh, jàppante ak yenn militant ou ex-Pastef mu saf sap donc ñu le leen de yu am solo donc gaay yi également ci la campagne 2024 un petit moment Nous ñëw ci campagne euh, campagne présidentielle 2024 nous duñu def de la météo politique mais dinañ joxe suñu xalaat euh, def également Ben analyse euh, ci présidentielle 2024 il y a quelques mois que ni le pouvoir au Sénégal pour la campagne 2024 il y a quelques mois que le pouvoir va soit va rester entre soit les libéraux ou les socialistes Je répète, waat le pouvoir en 2024 le pouvoir va rester entre les libéraux ou les socialistes

mais prochain président de la république du Sénégal buñ ko Ousmane Sonko doo bokk tànk Mom amul deuxième mandat dina ci ñëw bu ci kanamee léegi. sama yi euh, ñëw également ci campagne bi nga xam ne annoncé wu gars yu bëri jàpp ne boo moytuwul deuxième tour dina dina am ak jamono ji campagne nuñ koy waajalee surtout pour les candidats. Je, je, vais donner l'exemple de Mambo Yao. Il y a ce qu'on appelle informer, il y a ce qu'on appelle communiquer et il y a ce qu'on appelle du divertissement. Dina ci ñëw léegi Quand on ma ñëw d'abord ci Boun Abdallah Dionne qui di ADD Abdoulaye euh, Daouda Diallo xam ngeen l'ancien ministre des finances euh, il est entré dans les rangs comme je vous l'ai dit dafa nam de samp du dem ci derrière l'actuel premier ministre Amadou Ba mais il s'est nangu est-ce que le sincère lay donne ou pas on ne sait pas est-ce que ralliement yi am autour du premier ministre Amadou Ba le candidat de Beno Yakar, est-ce que ce sera de quelque chose de sincère de ci xam dara lenn moom xam dit euh, euh ADD il a subi des pressions Finalement, il est rentré dans les rangs. Le, l'ancien premier ministre Boun Abdallah que j'ai eu tout à l'heure au téléphone essayé de le wax loo ba ne ma wax mais mais mais monsieur le premier ministre pourquoi do wax mais il est gentil disponible humble c'est un homme humble je tenais vraiment à le dire légue avant mon live je l'ai eu au téléphone mu ne ma Maty parce que période bi période du mu ne ma Mati du ma wax parce que euh, jamono bi ñu toll jamono du jamonoy teesante xuloo ñiiroo ŋaayoo mu ne ma jamono bi jamono yi dal la mu ne ma boo gisee nag ma ne du ma wax parce que heure wax jotugul damay jox cër tout la communauté musulmane du Sénégal jamono bi jamonoy burdu la fu nekk Kaolack ak ñoomin seen kon nag damay ànd ak dal bu ñu jógee nag ci gàmmu gi Mati su boobaa dina waxtaan ak askanu Sénégal à travers une conférence de presse kon l'ancien premier ministre jaar naa ko fu ne xam ngeen ma Je rek man man damay bëgg lu xam te lu xam damay nettali mu ne ma mu ne ma je ne ne te fatigue pas Maty je vais pas parler du ma wax ak sénégalais urbi. Mati dama jox ci toute la communauté musulmane du Sénégal Mati dañuy dem ci gamu, dama respecter la communauté sénégalaise la communauté musulmane kon nag ñu jàppee ko noonu l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne nee na période euh, gàmmu bi lañ nek il respecte cela donc jox na ndaje askanu Sénégal après gàmmu bi pour parler au peuple sénégalais à travers une conférence de presse donc lolu la je tenais à voilà donc euh, euh, rapporter len ko gaay ñu ñëw ci li nga xamante ni nii gis naa waa ex comme sénégalais yi fu nek ñu ngi doxé sen soxla faale wuñu ay affaire de Ousmane Sonko gars yi fàtte nañu ko ndax Ousmane Sonko dama ne woon Ousmane Sonko yaa ne woon gatsa gatsa gatsa dina mujjee massa massa. gars yi Sénégal l'histoire m'a donné raison parce que de gatsa gatsa bañ ko jëlee di jëf ko cak cak aller ñaata yoon ñaar yoon ba ñetti yoon gatsa gatsa bi mujjee nekk massa massa waaye jamono ji dañoo jóge de gasta gatsa gatsa masta masta ba Sonko namoon naa la Sonko nam naa la. fu mu nekk nii kon ñu ñëwaat ñu résumé ko du Ousmane Sonko Ousmane Sonko gatsa gatsa ñu wàcc ba massa massa te instant bi ñu ngi ci Sonko namm naa la xam nga fan la ñu nar a Sonko xewoon na fi Sonko il mort nde nga ma yàlla baal entre guillemets il est mort et enterré Sonko doo bokk Sonko fu mu nekk di da nga xeewi le kan moo yore buzz bi c'est Benno Bokk Yaakaar. Vous me dites ñu euh, euh, depuis quelques jours Boun Abdallah John, euh, Japal Amadou premier ministre remaniement Macky Sall présidence fan la jëm Mambay fan dafa dafa dina démissionné ci fan lay jëm lu muy lijjanti mi ah Lat Diop boo Watchenen DG Lonase gouvernement bi Benno Bokk Yaakaar ñoo ki bi dem Nyom ñoo xew ñu ne déetewaay ñu ngi naan Karim Karim Wade ah doomu ndeyu Nafi Diallo ndax dafa na kañ lay ñëw ndax dina bokk réellement ci ci ci ci ci ci élection bi ñu ngi naan euh, Khalifa Sall ma nga ca ma ne ginnaaw ma ngay liggéey waa réew mi yónnee ma également ñu ne ana ana ana bor kii euh, euh, borom Thiès ah ndaamal Kajoor kaay leen ah ndoy baan yónnee ma message dinaa ko xool ñu ne ma ñu ne ma ñu ne waa réew mi ña nga toog jàpp seen njàmbur di liggéey ana idi ah le leader de réew ci fu mu nekk ci lu mu nekk ñu ne ma ngi ci rukkam di liggéey ah Babacar ma daal di ma ay photo ne ma mati ñu dañuy liggéey xaar leen ma dégtal leen photo yi léegi xam leen ni sama gars yi ñun on a plus le temps may leen ma tuuti ma génne leen photo wu Babacar Mar bu waa réew mi ma génne leen photo yi donc gars yi fu mu nekk nii président Idrissa Seck dégg naa ma ngay recevoir rek ma ngay recevoir rek Idrissa Seck daal mi ngi nii ma ngay recevoir rek am na yeneen photo yu nga xamante ne ni fu mu nekk ni moom boolewul ne na bokk boolewul dara ki wax moom daal ma recevoir rek waaw ma recevoir rek kii kii kii ñeneen mu ngi nii Idrissa Idrissa Seck recevoir rek Mar ne ma mati lu am solo Facebook gis gis ñoom baax yaay baax yaay combat bi ñom nee nañ Amadou barek Amadou barek Amadou barek rek kon nag ñoom lolu lolu moy mooy bu gan Gueye dañi sax ma ngay ma ngay a bu gan Dany dañi na ma nga ma ngay def lu tour du Sénégal ku nek ngi aal ku nek ngi buzz gay faté nañu Ousmane Sonko la sonkorisation ak de de xawma Youssou Ndour concert Youssou les gens ils s'en foutent vous m'excusez de terre. président Macky Sall ma nga won New York gën bëgg ko toroxal mais les gens ils s'en foutent vraiment mën ngeen fay yenn internet pour que ñu les sénégalais s'en foutent éperdument mais aussi di sama xarit Fall bu euh, euh, APR New York di ko bu baax euh, c'est mon vraiment sama sama sama doomu voilà sama New York et qui fait un travail extraordinaire mais li ma di félicite également ñoom Matar Lo dinañ vidéo mais me ma le aussi pour la prochaine fois les militants de l'APR ils étaient vraiment plus nombreux même que les militants de waa ex mais ils ont fait un live du début à la fin bëriwuñu woon militant APR ñoo mais des occasions pareilles il faut que des gens deux ou trois personnes ils vont déclencher un live tout toute la journée il faut qu'on di déclencher ay live pour One de bi sénégalais il faut que xam dëgg bi Ce n'est pas faire des vidéo de temps en temps tas ko ci Facebook non oui. parce que nous, ñu ngi def live di ils font beaucoup de bruit les gens pensent que euh, ils étaient nombreux voilà toj nañu New York voilà humilié le président Macky Sall alors que c'était n'était tel n'était pas le cas donc la prochaine fois la guerre des réseaux sociaux Les PC, le live il faut qu'il y ait un représentatif et qu'il fasse des lives deux trois personnes Nous avons fait l'ambiance des gens qui sont là pour le président et puis nous avons dit, mais gars est-ce que gis ngeen fou président Macky Sall taxawee ou ex-Pastef taxaw di pas du tout gars nous c'est le président Macky Sall mais mel na ni comme ñoom ñoom New York parce qu'il faisait des lives la prochaine fois il faut pas se laisser faire. Vous n'êtes pas laissé faire, mais il faut faire des lives. Tout simplement pour que vous la vérité. ma tegal le léegi léegi léegi ah dafa mel ni nduy ba <coughs> kaay vous mangi ngi ma may len touti sur la vidéo de Matar le Kagoulard yen seetaan c'est à New York. Macky Sall Macky Sall we up, we up. Limon seli seli seli. dóorante beeg rayante ba ñu won nañ ko fi ngeen ko gisee lii c'est les gars de de Matar le Kagoula nga xamante ni Matar le Kagoula jóge ci boy ba booy Roy cha xam kenn du ko fonto donc Matar le Kagola donc accès accès gars il m'a envoyé donc le vidéo la vidéo et que on a vu donc la vidéo même ci page euh, Facebook donc voilà ñu tant bu baax booy ex Pastef te duñ ko netali kenn donc c'est comme ça yuma Aïssa Ba euh, vous participer xamna parce que voilà donc live il est pas prévu qu'on qu'on fasse intervenir donc tey des invités parce que dama module ci tawat euh, voilà donc xamna dinañ tout à l'heure et comme ça voilà ñu programmer ko donc on va dire euh, un instant donc Yuma Aïsaba, Ba pas intervenir mais elle est coordonnatrice euh, elle est la coordonnatrice la vice coordonnatrice de APR États-Unis euh, donc je pense que ça peut être intéressant que nous jël accueillir le président un instant donc elle je pense que voilà elle est représentative ouais elle elle je pense qu'elle est représentative gars de intervenir. Euh, si c'est mangé nous nous donc aux États-Unis nous intervenir pour nous dire comment comment s'est passé euh, si c'est mangé ou comme danga ma message vous intervenir voilà donc euh, gars je pense vous êtes témoin Yuma Aïseba donc je vous ai appelé euh, pour que nous intervenir mais voilà bon moment avant donc la fin euh, de ce live parce que aussi voilà donc elle au moins on sait qu'elle est responsable donc sama euh, encore une fois d'une fois certaine, que di di di perdre beaucoup de temps ou yi waa Expassif président Macky Sall face à face face la première dame mention spéciale ndax fa fa fañ ñu leen waroon e, e, e, ba fa mu war a la première dame dafa dox ci dig dans les rues de New York gaay yi garde garde corps yi sa bëriwul woné xoolal deugal bopam ma dama ñëw rek mujjé ko fan donc dafa melni elle est en train d'appeler ñu ñu jël ko Yuma Aïssa Aïssa ñu mun ko jël ah un instant ma ma ma woowaat ko allô

il faut que nous éclaircir que bala nit ñi di nax sen bop xam nga le président Macky Sall est venu depuis le 17 fi lañu ñu mhm. donc li si bëri ñu ngi koy gis ci internet bi ne nit ñi xamni c'est de la manipulation. parce que ñom ñi di wax tay ji amul kenn si ñom ku jàkkaarloo président de la république. Mhm. donc nous étions là-bas. Mhm. situation bobu ngeen gis tay ji mu nekk si kanamu hôtelu président bi. donc dañ fa ñew bi ñu bu ñuy ñëw dañuy dañuy dañuy tasaaroo ba ben moment ñu regroupé wu taxaw fofu di Saga. donc c'est ça qui a fait que. Mhm. Euh, par sécurité reason parce que foofu jour boobu sax pour te dire que dafa amoon benn dîner de gala te y beaucoup de présidents yu wàccoon si hôtel boobu mhm. donc c'était pas respectable parce que doomu Sénégal yi kese lañ fa gisoon ñuy ñuy ñuy taxaw di wax loo xam ne naka sanul noonu mhm. te bu doon dañ koy wax jàkkaarloo président de la République mais gisuñu président gisuñu ministre gisuñu kenn donc dañu doon utiliser comme euh, seeni téléphone suñu jàkkaarloo gisee jigéen most of the time nag ñun jigéen ñi lañ doon target donc bu ñu taxawee rek ñu jël fii di caméra di la saaga te comme li mu wax euh, dafa nekk loo xam ne non sens na xam nga taxaw jàkkaarloo mm-hmm. loolu xam nga ay reetaan lay def parce que mënoo ko dóor mënoo ko def dara donc saaga nag comme li koy wane dañu doon wër di taxawaalu suñ demee fii ne on a eu la chance de voir le président plusieurs fois boo mm-hmm. vidéo yi na ko mm-hmm. rencontré nañu la communauté sénégalaise yi nga xam ni seen réew moo leen tax a jóg respecté nañu lan mooy seen dëkk. Mhm. ñoom ñëpp dem nañu remercier suñu président de la république parce que tamit li fa Macky Sall la suñu président liggéey. Mhm. ñun ñëpp teg nañ si suñuy bët. Mhm. donc nag je pense que il est temps que doomu Sénégal yi understand que. most of the time li ñuy wane si internet bi ay nax la dañu leen di nax dañuy jël ay voix. di ko def si ginnaaw ay euh, regroupement di amplifier. di wane ni ñoom ils ont le contrôle mais fii amuñu benn contrôle parce que bu ñu amoon contrôle mhm. c'est-à-dire que dinañu mën a am lu ñu gisee président wala lu ñu mën a def président wala les membres même du gouvernement mhm. gisuñu si kenn Mhm. ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dëkkal fii la ñuy romb caméra la saaga la dugal ko si internet bi nax gaa yi ne leen lii lañ lay def lii lañ lay def mais ñun ñoo ngi nii toppatoo suñuy kër toppatoo suñuy liggéey mhm. business on les comme de gens qui ne comprennent rien du tout mhm. moo tax nga jàkkaarloog sa moromu Sénégal di ko saaga foo ne ne loolu daf lay daf lay yokk doole wala daf lay yokk kilifteef alors que en en à partir de ce moment tu te considères comme un animal ñen baal ma sax na am na rabu àll yoo xam ne ñoo gën yenn comportement doomu mais, mais, mais, quand même, comme je l'ai dit, euh, euh Madame Yuma Aïseba, euh, parce qu'on est époque aux réseaux sociaux et l'image, c'est quelque bah, le, puissant là, le nous, là. ñoom dañ amplifié parce que dañu def ay live en direct di ce que c'est bopp alors que yéen vous étiez même beaucoup plus nombreux vous a gënoon a bari mais pourquoi du ngeen aussi ay nit pour faire des lives pour montrer la vérité en fait. mais xam là ñun on a fait de live boo demee ngeen xool si internet bi di ngeen ko gis on a fait de live surtout man mais j'ai fait des lives boo xoolee sama Facebook di nga ko gis avec les cours tout ça là mais li nga xam xam nga euh, Mati. Mhm. soo tàmmoon wax lu dul mhm. mhm. que dafa am loo xam ne dañ leen ko jàngal. et que ne dañuy wax lu dul dëkk. donc c'est trop vilain si doomu Sénégal nga nekk doomu jullit nekk nit ku baax. ñu wax nga jàkkaarloog internet bi di wax lu dul dëgg. donc ça fait honte moo tax nag mm. sometime mm. Euh, am na si loo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg ñun mënuñu ko parce que dañoo nekk si dëkk bi di liggéey mm. yàgg fi am fi situation am fi ay njaboot am respect ñu respect ñu si réew mi ki nga xam ne nag moom tekkiwul dara rusul ragalul amul lu muy xool kooku lu ko neex mën na ko defa ah. te boo ko toppee di nga si biir di mel ni moom mm-hmm. donc nag c'est ça qui fait la différence mm-hmm. parce que les gens yi nga xam ne dañoo ànd ak Macky c'est des gens très responsables qui se respectent vraiment mm-hmm. loolu moo tax lu bëri tey ji mënuñu ko mënuñu tiim nit ñi leen saaga ndey mënuñu tiim nit ñi leen wax parce que bu politique bi jeexee ñun ñoo fiy desar ah. ñun ñooy demandoo si ngénte yi ñooy demandoo si mariage yi ça fait mal de voir la communauté sénégalaise se diviser d'une mm. façon aussi dégueulasse. En tout cas, euh, vraiment, le message est passé. Donc, si on, fait un petit peu ben résumé, récapitulatif. Donc, président, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, loi ex-passif, euh, la mine, jégewuñu président, Euro euh, ko face to face. Donc, voilà. Et tout, c'était de la manipulation. C'est ça, en gros. Ok. Merci beaucoup, Marie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien des choses. Au revoir voilà donc Gaï, donc c'était euh, Yuma euh, n'est que donc la vice coordinatrice donc APR euh, États-Unis voilà donc fallait c'était pas programmé mais comme responsable faut faut intervenir rétablir donc la vérité beaucoup également ci live donc gars quand nous continuons, continuer Mirmi féliciter encore une fois Matar le Kagoular et également le groupe Xeexal Sénégal aussi ngeen ils essaient également de faire la même chose sonkorisation du concert de Youssou Ndour etc., cetera ça prend pas en fait vendredi bi passé il parle de voilà wa espace en blanc c'était un échec total gars yi nit ñi commencé nañu faté Ousmane Sonko Bay leen moyalu bi nit ñi fu nekk ni talatuñu leen ñu nga ca leneen loluy deug donc comme yeen gatsa gatta ngeen woote te mënu leen gatsa gatsa fu mu nekk ni ñak pexé ngeen def moy sonkorisation néna naa leen xoolal ndee leen la rek ñun fu nekk ni dé leen wéy ak fecc rek ñun ñu gëna xalé yi di dé ak également ngeen jël ay magasin di dajji dire jeex na tàkk la ca des nak mom moy Guy Marius il essaie de faire comme comme Ousmane Sonko en 2019 il fait le tour de l'Europe c'est comme si dafa bëgg nek ben plan B euh, euh bu bu ex-Pastef lenn de xam Guy ko gii gii doo bokk fii laa ko te bu yalla Guy Marius Sagna doo ndax nit ko xamante ne dañuy gis say say say say munoo nekk suñu président Guy Marius Sagna fii nga toog sumi sa sumi sa euh, sa tubéy ne xaw ma dañ laa gaañ ci poot gars yi photo site internet ci journaliste ñëpp photo sa poot ñun koo xamante ne ngay simi sa tubéy ñuy gis say say cuisse ak say yeel ak say xot doo nekk suñu président kon Guy Marius Sagna munoo nekk suñu président Guy Marius Sagna ko xam da ngay dem nekk député dem assemblée nationale dina yëg ci kaw ci kaw table yi di di mel ni mel ni golo Guy Marius Sagna mënoo nekk suñu suñu président te bu loolu weesoo Guy doo bokk Guy tu tren traînes de casserole boo gisee Guy du ma yàgg ci yow Guy Marius Sagna taluñu la ñun fu mu nekk nii ñu ngi lijjanti ay ñu ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne candidature am Amadou Ba candidat Benno Bokk Yaakaar ay ay ñoom ay ñoom ay ñoom ADD ñun ñu ngi lijjanti président Macky Sall lan lay def ak ay ñoom Mame Mbaye Niang il est dans quoi njut ci yooyu lañ ne ay Karim Wade kañ lay ñëw Nafi Diallo ci lu mu nee sa candidat anamu gi euh, euh, Idima Idrissa gëj nañ koo dégg xam nga ay affaire de xalifa Sall ma ngay lëlu ñun ci yooyu lañ ne ñun taluñu la gii ay gii bés buñ la talee nga am woy gii doo bokk gii bu sonal sa bopp. ba pare ex-Pastef dafa am plusieurs clans dafa am ñoo xamante ne nii c'est des sonkistes am ñoo xam ne ci biir parti bi lañ bokk am na ñoo xam ne ay sonkistes lañ les sonkistes. duñu votel kenn ku dul Ousmane Sonko ñoom amuñu plan B plan Z gi do bokk gii bu sonal sa bopp gii ak say cuisse ak say poot diñu ko wan diñu ko xoy gii doo bokk foo boo ne la sim la sala ëmbal nga nit gii duñ la jox président be ngay dugal ay xale yu di ëmbal ëmbal ëmbal ëmbal tout euh, euh, trois quarts xale yu jeune fille yi gii doo bokk munoo kon no amaguñu sa damalay tek ni nii jàll parce que yow yow do ka donc buñ jógee ci lool sama gaay ñu ñëw nak un petit peu ci campagne 2024 parlons sérieusement tay live bi du goudou, campagne 2024 bi ñu wax ko mu leer sama gaay yi sama voisin bi metti na de may la ma ci sama voisin bi la Je vais le voisin ah donc gars donc du du du euh, donc pour vous dire que campagne 2024 bi wa APR wa Benno Bokk yakar xamna ni sax alliés yi euh, nekkuñu bir APR ils ont beaucoup plus de recul mais lui wax ni man je le dis j'ai beaucoup d'amis bir bir APR surtout wa actifs républicains mais sama gars euh bu ngeen moytuwul deuxième tour dina am de affaire bi jik jik rek ngeen ñëw ngeen jël jël victoire bi dina du démé non de il faut réellement ben unité autour de votre de votre candidat il faut ben union unité autour de votre candidat bu ngeen ko fou qui di Karim Wade Idrissa sec. il risque de faire très mal ma wax ko waxaat ko sama gars campagne 2024 bi nekul na affaire bi ñor na ko ma da ngeen koy jël fruit bi rek di xamp lekk nek nekk euh, euh, euh, ngeen pouvoir bi il faut se battre les ralliements ay léegi Amadou Ba lañ dañ koy soutenir est-ce que c'est sincère nañ ko xoolaat sama gars yi lii de laa amoon pour di leen ko wax am na yoo sax bëgguma koo wax ndax il faut candidat yépp dem d'égal chance baax yaa xam naat bu ci kanam dinañu waxtaan bu loolu weesoo waxoon naa ni leen pouvoir 2024 ce sera entre soit libéraux ou wala socialistes les libéraux soit Idrissa Seck wala candidat wu Benno Bokk wala Karim wat socialiste il y a Khalifa Sall y a ñoom Malick Gakou Quand Ousmane Sonko télon nako, ne ko Sonko do Bok. mbir mi c'est entre les libéraux et les socialistes pour Ousmane Sonko ko ma continuer dama ni duma Yalla de defuma météo politique mais dama koy prochain président du Sénégal xuma kan lay waaye képp ku ñëwaat président du Sénégal Ousmane Sonko waxuma ba tey doo génn mais dama Ousmane Sonko Do bokk tant que tant que président bob amul deuxième mandat ngeen bind ko takk ko téré mané Ousmane Sonko yéen fi nekkoon di ma saga di ma khas di ma diffamer ma tok rek nekk ci combat bi Ousmane Sonko prochain président du Sénégal tant que amul deuxième mandat yow Do bokk donc mun ngeen njaaba njalli calli calli sonkorisation on s'en tape ma jeexale nag ci benn mbir mooy sama gars euh campagne présidentielle du munici du municipal du ay élection législative campagne présidentielle c'est un homme di on va dire di war avec son peuple c'est l'image d'un candidat présidentiel à la présidentielle moi un exemple comme le mambouyao, Moi, rien contre mambouyao, mais je donne son exemple tey euh, des tiktokers des influenceurs de manière générale L'eau, c'est du folklore c'est du divertissement peut-être que nga me toucher la jeunesse mais il y a plus de folklore qu'autre chose campagne présidentielle il faut faire la différence entre informer, communiquer et divertir. Et je répète, faire la différence entre informer, communiquer et divertir. mën nga sa candidat journaliste plateau on parle de lui journaliste on parle que de lui les réseaux sociaux on voit sa tête partout ça ne veut pas dire que d'un coup imposer sénégalais sénégalais qui impose du sénégalais qui imposer candidat sénégalais kenn du ko ne par force qui ki lañ qui ki moom ngay voter dedet mën nga fess dell ci réseaux sociaux yi jaay mais la informé wo communiqué ou lu leer la len wax limay wax exemple rek vous joxé ciblé wu ma Mame a ciblé wu ma kenn kon on a fait presque 37 minutes ci février, vous bu paré remaniement bi inshallah dinañ am

faux compte là donc je sais pas Ndeye j'ai pas compris ton message de euh, dafa bind de gue je pense mais j'ai pas j'ai pas compris le message de de en tout cas Ndoye mangle nuit ou lay nuyu bu donc le maire de Pire nga on a travaillé ensemble donc faut l'être Océan FM nekkoon également Seneweb nekk faut euh, fële TFM Nek le maire de Pire de Pire di def un ligue, euh, un travail extraordinaire en tant que maire Faut faut ca goxam gëm bar bar baax également foofu di Pire di nuyu aussi ou Pire bu bar. a baax a di également ki nga xam moins moom gars donc lii la euh, am yu j'ai beaucoup beaucoup d'infos mais je ne peux pas pour l'instant pour que candidat yi ñu nek d'égal chance am yo yoo ni ne ko comme information day melni dama far donc il faut vraiment ñu def remaniement commencer parrainage yi euh, yenn info ñu mun ko joxé par rapport à la campagne bu information amé nekul ne mati da nga far mais dañ ko joxé par rapport à la campagne té je dois également faire attention il y a beaucoup de clans ma baña subir manipulation de certains clans donc je dois rester neutre donc mon je préfère def une live de 39 minutes 40 minutes mais j'aurai des informations je sais que les euh, li que may euh, voilà di dugg donc je pense que vous allez vous me comprendrez gay di euh, donc di di donc voilà néanmoins je tiens à informer l'ensemble de nos followers euh, que ce compte n'appartient pas à monsieur Ndoye chroniqueur et maire de Pire ce compte est un faux compte utilisé dans le seul but de saper l'image d'un honnête citoyen nous vous demanderons de bien vouloir partager au maximum cette information barrons la route aux imposteurs du net donc dafa mel donc qui dit Ndoye ci euh, Facebook bi euh, donc euh, nena li nga xamantene ni c'est un faux compte Ndoye la xam honnête citoyen té man ko confirmer ko kon nak amul loy tit loy ragal ñu ngi sa yow ci jamm ak ci ak ci lu am solo rek ci ngay dox ci farata rek ngay dox kon ak di di donc la semaine prochaine donc dimanche prochain mais entre temps lu am rek dina partager sur les réseaux sociaux jamm donc vive le Sénégal de la république jërë ngeen jëf yàlla na jàmm yàgg.